lu waaye war wax moom da wax li nga xam moom nga gis si moom rek. ndax Ama de moom wax dëgg sa yàlla bu doonee du doonee bu dëgg rek Pikine am na ku ne waaye Ama Baldé da kenn Pikine ndax bu jugee pikin yëngu. Hmm? waaw waaw waaw waaw. wax noonu. waaw dodul moom nag baayam la muy fàllaay. la ilaha illallah waaw loolu dafa am loo xam ne dafa garaaw dafa bëri doole. Hmm? non. waaw. damaa tëddoon seen waxtaan wi dafa neex ma ne naa ci dugg rek ñam ci lu ndaw rek dal ndax domaane la boor. walaay ndeysaan walaay walaay. Ah, yow yow su ma fërëteel ko. Ah, looloo may daaneel looloo daaneel ñëpp nag. <laughs> tout ce qui fërëteel loo. <laughs> tout ce qui fërëteel loo tout ce yow ñaami gomi yow. alaaji Fadam. waaw Ama Baldé Ama Baldé Baye Fall buy préparé Gris Bordeaux. Mhm. te Ama Baldé moomu Gris Bordeaux moomi préparé Modou Xarañ loolu le roi des arènes digganteem ak Ama Baldé am na fuñ ci toll. dëgg la. ci war a yaatal ñu dugal yeneen. waaw am na gars mën ngeen def demande ñu dugal leen. li ma ci war a mën a yaatal fi mbër mi tàmbalee laay tàmbalee Siteu. barki Demba Ndiaye di seetaan nga ko. waaw dañ ko wax ci komba Ama balde ak giri bodo muy lan day ñaanal Ama balde daan Gris bodo waxu ko ngir dara daf koy wax pour ubbe ko waaw waaw waaw waaw man lool la gis ndax xamul tax waaw ci te le parle la fay taxawé xam lan le parle amul kenn koo xam ne dina ko mëna faral waye lamb Papa Sow daan te dafa neex waye Ama balde dan giri bodo tamit lool neex na de wala ndeysaan ndax xam lu tax xale yi dañuy màgg relève day am. te Ama Balde li ma la waxoon laa lay waxaat. lan nga ma waxoon. dama laa waxoon fii nii la. jil Balde. tabaxul kër ga. papa Balde. tabaxul tabaxul kër ga. déedéet. ni la ma ne limal la ñoom ñëpp tabaxul kër man la ku tabax kër ga nga ni ma caat man la kër ga balaag la woon. walaay ndeysaan. Baye bu musaan toog ak moom daa amoon ci moom yaakaar te yaakaar jooju nag dafa foor. Hmm. waaw waaw waaw waaw yaakaar jooju noonu barki maam Cheikh dafa foor. Ah, ah sama xarit bi moom nuy naa ko. jàmbaar ñu ngi lay ziar. naka tey. sant alhamdulilah. yow nag sama fekkente yow man maa saako de wax fa dal Fadam wax na la ko. waaw yow damaa bëgg di fekkante ak yow ndax yow da nga saf xorom bu jéggi dayoo Fada moom xam nga ni kii dama ko bëgg. maestro dama ko bëgg xam nga maestro dama ko bëgg dama koy dog fa ba pare xamal ni ko moom dama bëgg nit gu gëm boppam. dëgg la barki sëñ Fallou Mbacke dama bëgg nit ku gëm boppam waxuma ko nak ngir dara waaye dama xam ni nit la bu gëm boppam ci lépp lu muy mën a dugg waaye di la xamal ci Ama balde lu ndaw lu tuut te bari mooy lan man ri un angle six kër Balla Dogo mooy suñu kër gu mag kon xam ni la dëgg la mais dina ri un angle six ku ko xamul dégg nga ko kër Balla Dogo wala waaye Ama balde Mhm. day mbër mo xamanteni lo nat ci tere jappo ci Ama balde hmm waaw. mbër la mo xamanteni fa mu dëkk dan ko yaakar fa mu dëkk fi lañ ko teg ci sen bakkan bi ndax dafa dafa nek mbër mo xamanteni bu xewle Pikine day neex. lutax li tax moy da leen jox li nu bëgg. Hmm? Ama saa bu bëree am lu xew Pikine Pikine dundaat Pikine neexaat te waxuma la dara mais Ama daa am jomug làmb de du mbër yi nii de. Hmm? géej boobu nag mbër la moo xamante ni amatul lenn loo xamante ni rek defu ko ci làmb ndax ku bëreeg Tyson un bëreeg Tyson junior toj Pikine bëreeg booy. rasa euh, maanaam def nga dara Pikine dégg nga li ma la wax. dégg la. ñaata nit la daan Pikine. ngir. daan la ah, li ma la wax loolu la fa daan. Tyson Tyson si ñoon deme si yàlla jibi ak ak jibi waa ak Eumeu Sène ak ak Baboy ñooñu ñëpp giri bëri na ñoom. Mm-hmm. te tey jii nii wala wala bëreeg Tyson non Tyson rek la bëriwulal wala bëri na waaw bëri nag Mohamed Ndao Tyson muy ñeenti nit mhm. te pikit ku ci nekk am fu mu jaar ak yow kii di bëreeg moom doon doon seenub caat di seenum rak xanaa Ama Balde nag moom wa yabeewul ci yab goo xamante ni fii Gris Bordeaux toll si làmb moom Gris Bordeaux di ko déranger ci ci fii mu toll ci dynamisme làmba am na solo Baye Fall ñu dugal ko su Bakary Sakho moom lu mu Alaaji Bakary. waaw Alaaji Bakary ñu nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm. Kousu Bakary Sakho. ay jégalu sànq soxna see doon woote. Ah, farata la ñooñu romb na farata. loolu sunna farata sunna la ah Alaaji Bakary Sakho. Mhm. ñun la yëpp euh, mhm. Balde war a préparer Gris Bordeaux. ca pare ba ñu paree Gris Bordeaux bul fàtte ne. moom Modou chaque jour seen diggante war naa mën a dellu si waat ban préparation la war a préparé Gris Bordeaux Gris préparation la war a préparé Ama Baldé nga nga yaatal fadam fadam boo bëggee dégg dëgg Ama Baldé mooy gën a nekk ci pression mooy gën a nekk préparation mooy gën a nekk ci pression hmm, hmm. que ça soit bu fekkee ni Ama ci boppam mi ngi xaar Modou Lo ñu jox ko gri donc préparation bi mu wara def moy gri plus Modou mu deux préparation yo xamné ci même te non seulement combat bi fi mu ko jëlé jàppale même ci mystique dana préparer deux fois pas une fois deux fois. dëgg la. donc dis-toi que combat bi mooy. principal combat bi bu ko Ama ñak yaakaaruma. Modou Lo boo bëggee tekk dëgg. mais ndax Modou Lo ruube naag. Gris Bordeaux ñaari yoon déggul déggul li nga ne. ma ne Modou combat bi bu ko Ama Baldé ñàkkee. waaw yaakaaruma ne dana bërewaat ak Modou Lo. mais yaakaaruma danañ bëre ñoom ñaar. Hmm. à donc dama yaakaar ne système bi nga xam ne ni tey amaa Baldé daan na ko Papa Sow fa ñu ne contre Modou Lo. gars yi dañoo dem ba ci biir am leneen lu ci laxasu ñu xool ne xëy na peut-être matagut jotagut ñu trouver beneen solution beneen affaire teg Gris Bordeaux présentement maintenant Ama bu daanee Gris nag Ama Modou Lo soog a ñor cent pour cent mais est-ce que tey Ama dana daan Gris waaye nag may ma foofu Alaaji Bakary bala ngaa sori tey tey man ak yow dina am foo xamante ni dinañ fa xaw a réeroo hmm, la dégg nga ma. ñëwul maa ngi sama frère Thélo maa ngi koy gis si sànq Feugeula 2 numéro 2 maa ngi lay siyaar baax Feugeula mais El Hadj Bakary. Hmm. Gris mën naa daan Gris Bordeaux ku dul Gris Bordeaux waaye Gris du mbër moo xamante ni tamit ci guddi yi tamit ni ma ko gisee nii. Hmm. lu bari mën naa bañ a yomb ci moom ndax xamul dax am na suñu benn papa boo xamante ni moom dafa nekk ci <laughs> encadrement wu ama mi ngi def bataille psychologique loolu bataille psychologique la naan faa séeréeroo woon nañ waaye jiboo gi moo neex. mooy Père Abdou Bakhoum. Père Abdou Bakhoum xam nga dafa neex ndax moom léppam lii la cervelle loolu waaye dama laa bëgg a xamal ni la. Gris Bordeaux mu pere képp mu pere képp dama koy jar a maytuloo waaye combat boobu noonu amul lu may moytuloo Ama Baldé ci diggante moom ak Gris Bordeaux hmm? ci lenn mooy waaw ndax xamul ndax dafa waroon a bëre Modou te Modou Lo ak Modou Lo ak Gris Bordeaux bëriwul. ankay. Gris na la ko def. da koo daan. jël bu rëy. Hmm. léegi yow nga waroon bëre Modou Lo loolu war mën a yàqu. Alaaji Bakari am na fu mu wax mu ni mu Ama Balde su daanulee moo su daanulee Gris Bordeaux làmbam moo làmbam moo Modou mën naa yàqu mën naa bañ a yàqu da waaye yaakaar jënte amoon moom lañ jënte doon am moom lañ tuddul amaat ndax xamalu tax ki nga daan yow ki daan bu fekkee kooku moo la daan maari day taal yi kon nit ñi dootuñu amat ci yaakaar jooju noonu ba tax na Modou Lo. jàmbaar. bu ngeen bëggee dégg dëgg. Hmm. Balde il a peu de chance pour dan Gris Bordeaux. xam nga fi mu toll nii nag yéen gars yi di wax. mille chance mille chance mille chance mille chance. non waxuma mille de peu peu de chance. wax lu tax peu de chance. dafal ndànk rek gis ngeen yéen. maanaam. da ngeen bayfal meek mu ñëw bayfal meek mu ñëw bu ñëw rek nga ñëw. bisimilah. bu jàppee gri bu jàppee gri billahi wallahi wa taalahi il a peu de chance. pour dan giri waxuma la ama bu jàppee giri de kemport dama lay wax rek ama bal de giri ama mo hmm. gëna ni chance dan giri lu ta fo tek lool fo tek lool ala alaaji bakari. combat la ko tek ak ci tactique combat la ko tek xol ñaar wa xam nga xam nga bo bo waxe dara da nga nan fi la ko tek mais lo tax mo di wax na la fi mako tek xana ya deglu rek bi may wax waaye ci beure la wala ci lan ci beure la ci lan tactique wu bëree ci tactique wu xeex yëpp. daa lay tegal ah mais attends defal ndànk Ama Baldé la ñuy wax de wax ma Ama Bal bëre la fi bëre bañ naan waaw wax ma ko rek dañu waxante dëgg rek te yàlla tax xool leen carrière Ama yëpp leen la fi indi sañ-sañ maa la ëpp doole dox ci sa kaw bu ñu waxante dëgg rek te yàlla tax. Fratello Fratello même ma ñëw waxal. may leen ma ñëw. Bakary Sakho Bakary Sakho Ama dama lay tuddal ñaari mbeur yo yoo lamb dañ leena moytu bu toll fi ñu toll. Mhm. muy tin hmm damay am benn briefing bu ma lay defaral rek. la ay bakari mii fu mu dëkk. mais wotu rek frété lu même tuuti rek ma ñew man kay duma waxat damay baba nga daal lu ko mag frigo bi. bul faté né bu len faté né Bombardier mo daan modlo même ma ñëw kii xamul ama même ma ñëw même ma ñëw. bëgg ñu moo daan mudloo. Tafatine moo daan bombardier. Ama Baldé bi mu jàppee Tafatine baata tontu la ko daan nel benn. la ilaha illallah. ñaar Malick ñaar dañ ko jox Sathiès mu daan Sathiès. bi ko Ama Baldé jàppee ci baata tontu la ko daan. te li Malick ñaar gën a a ci la ko Ama Baldé daan. waa Tine mu a mën a ci la ko Ama Baldé wax foo ko teg. waaw maa may foofu balaa Bakary dugg Bakary alaaji Bakary baal ma baal ma rek baal ma rek ñamal ma bala ngaa dugg après ma may la. guys on va dire la vérité gis ngeen waaw may ma tuuti bala ngaa dugg xay xam nga da ngaa wax benn wax boo xamante ni am nga ci tontu am naa tontu may ma tuuti rek dama la koo ñaar mën nga maa may alaaji Bakary. ñëwal amul problème ñëwal. waaw kay yow du ma discuter ak yow ndax sami tout say frais col la amee sama dama dama lay bàyyi xel ci la ngay wax ci say commentaire ndax làmb nii la da ngay wax li nga xamante ni moom moo nekk sa dënn keneen wax li nekk si dënnam bu ko defee ni nga xamante ni ñoom du passe dans le monde dama bu ma jaawalee gars yi du ma waxee dënn xam nga moo xam nga lan mooy waxu dënn xam nga lan mooy waxu dënn lu nekk sax xel kay loolu mooy lu nekk si dënn Bakary dama laa déglu attentivement déglu ma rek Bakary dama laa déglu attentivement nga daan ni déglu ma nga daan ne Bakary ñun duñu ay chinois duñu ay japonais ay sénégalais lan fii maam góor gi Njaay dafee nekk fallaay mooy bàyyi Ama Balde xam nga kuy fallaay ah. dafa fallaay bëriwul maa ngi jégalu. waa léegi déglu ma rek yow waa ku ku jur doom deewoo nag ma wax la ko nga ci xel am nga doom am nga doom. mais ça par rapport xam nga moom laa leen. non non don nit lu mu doon day deug lu ma rek am abal de bayam da bëri ngi titre force man Ama Baldé du sama mbër ñëpp xam nañ ci titre deug lu ma rek Bakary da nga wax ma deglu la xari déglu ma tuuti ben 2 minutes rek. du question papa da mi jaay non non rek waxtaan do dañuy waxtaan li nga xamanteni xamante da la wax da la wax ñaar yu am solo te bàyyi ko déglu ma xarit buñu deglon tay rek nit ñi dañuy deglu non dama ah, yaakar ne wa waa wu yo xam nga même fa da mi bo ray pour di wax di profilu yu non non non non da nga wax lu am solo degluma ma Bakari ñun ay sénégalais lan Bakari. foo ne. Hmm? dama lay ñaan hmm. Sénégal par rapport li may wax ak sénégalais bakari taxo bakari nak yow tamit bo defee ni fay mel da arabiyato da fay mel da nga mer. parce que yéen nit day wax gout ngeen tagat ko. non yo bakari da nga wax non da nga wax. do ñu bañu Baye Fall Fada may man ak damay bàyyi sax di ngeen dem damay ñam tuuti. non non non bu dégg déglu ma inter déglu rek. Bakary suñu Bakary la. fii fii kenn nekk fii ay li muy làkk la ñuy làkk ay olof suñuy dialecte. comprendre nga dafa wax lu am solo. am solo ñaari deux minutes ba pare ak ma bàyyi ko mu mu firi ko mu birif luñ koy waxee noonu. dafa wax ñaari am solo mu daal nii. ci lépp ci tous les plans moom fi mu ko natt dañuy Gris Bordeaux moo ko ëppale lépp ci Ama Baldé dëgg lool dëgg ndax dañ ko dama ko ci dóor wala ci xeex mu nattal ma ci loolu lépp ni ma Ama Baldé kan la fi daan nga limal ko ñaari mbër yoo xam dañoo naqaree daan benn rek tafaatin bi ko Ama Baldé di daan daan naqaree daan tafaatin daa bombardier dóor ko foofu dool di dégg taj taj taj taj taj ba bët ji suulu <laughs> Elton Elton bu ko bu ko perte Balla Gaye jappul won ndema ci Yalla ci daaneel kon kon kon kon fo mo fan la ko tafaatin di yóbbu Ama fallay baye fallay ay bayam am ci mom yaakar mbeur Pikine yaakar ko mu nek mbeur mu mën geew toll ci guddi yoo xamante ni guddi yo xamanteni Pikine doon koo man guddi yu ndol du mala wax len de barki sayidina muhammad ku modlo Lo di daw du ni da koy daw de waye ku modlo Lo di baye xel xooloo Gris Bordeaux dafa neex yalla foofu lay teje samay kàddu budé ya ko dakk bëre baxna budé ya ko dakk baxna way waaye Ama Baldé xam nga xam nga lan la xam. ndam te loolu la ñuy signifié ndam ndam ndam mën nga ko nit mën nga ko dakk bëre mu daan la di nit mën nga ko dakk xex mu daan la Ama bal bi muy gërëg bo ñaar bi muy bëreeg ki num mu tudd Malick lan lan doon wax. lan lan doon doon wax ay bu ko malik Niang jappé lan lan loolu lan doon wax te duko ko da humilier Malick bi muy bëri wax tafaatin may ma tuut foofu rek ma tëj la la doon wax tafaatin bu ko tafaatin jàppee te tafaatin la ko lan la ko Ama Baldé def plaqué nga ni kooku noonu di ko xalaatal Gris Bordeaux ci xale bu ndaw boo xamante ni booy xat ay atam ay quatre vingt la Gris Bordeaux ñaataat la am Ama Baldé bu mënta daan Gris comme li ta wax bàyyi boo mu xam ne mënul daan Modou Lo roi des arènes kon bu mu xalaat sax di dig waa roi des arènes te Ama Baldé nee na bañ may dig roi des arènes du tey amaa Balde moroomam moo koy daan waaye du ñii xaw ma nag luy xew suba waaye man li ma gëm ci làmb ak li ma gëm ci sport xam ne xale moo koy def sa yi yii nii rein ay rein yii teppax yii loolu xale moo koy def Alaaji Bakari Sakho nag loo bëgg a wax waxal. déjà déjà au départ ay rein defur spor bu ngeen xamee lan mooy rein. rein lan mooy rein. day déglu ma rek gis nga moom la gis ngeen moo tax ma ne da ngeen di jaawale pédale yëpp ñëw teg gars yi man waxuma ay doomi mbër. bàyyi mbër surtout mbër loolu lijjanti wu ma ko li may lijjanti dafa leer nañ dama ne leen Ama Baldé il a peu de chance daan Gris Bordeaux benn ngi noonu donc da ngeen déglu. Baye Fall da rek da nga koy déglu. ba suñ wax ba keroog muy daaneel. bëre bi Ama di bëre doo gis mbër muy yéeg ci kaw Gris Bordeaux amut benn ngi noonu ñu waxante dëgg rek. tey hmm. Fadam waaw amut wan wax ma ban mbër moo yéeg ci kaw Gris Bordeaux nañu waxante dëgg. mais ndax mbir yi daan bëri Gris Bordeaux ak Ama Baldé ndax benn lañu. donc bul kon nag neel ndax mbir yi bëri ak Ama Baldé ak Gris Bordeaux benn lañ du benn moo tax ma leen dañ leen ñëw ci statistique combat. ñëw ci profil de combat. ñëw tax ñu naan combat. profilu Tapha Tine du Gris Bordeaux. profilu Papa Sow du Gris Bordeaux. offensifu Gris Bordeaux du offensifu Papa Sow. offensifu Gris Bordeaux du offensifu Tapha Tine. du offensifu Malick Niass. faw ñu bàyyi xel ci loolu ñaar Gris Bordeaux wul ci pression nekkutul doonatul mbër buy nekk ci pression dama leen koy wax muy benn ñaar Ama Baldé nag lañ jël lépp sas ko ko benn yaa ëpp doole yaa gën a doon xale bu doon ëpp doole gën a doon xale rek xale du daanu amul tàkkusaan buy gone daam làmb boo ci dugg xam-xam moo koy indi Ama Baldé bëriwut bëre boo xam ne nii tey war nañoo mën a wax waaw amu wan ma combat wu Ama Baldé bu mu bëree bëre boo xam ne nii à part contre wax ma ko sa garde baaxut am nga fit ñeme nga am nga sañ-sañ ñett yooyu la amaa ñëwee ci làmb ñett yooyu lay amee ndam léegi nag mi ngi dajeeg profil boo xam ne nii contre ak moom façon bi muy doxalee la keroog bi ñu waxee Ama Baldé Modou Lô dama ne Ama Baldé mën naa daan Modou Lô moo ëpp chance daan Modou tey nag bu ma nee Ama Baldé il peu de chance daan Gris parce que même Modou Lô avait la misère pour daan Gris amul mbër buy jàkkaarloo Gris te doo am jafe-jafe daan ko kon bàyyi leen affaire ki mag la fii rien fal nangam na yooyu doxut yooyu du yooyu man teguma ko ci xam-xam bu ñu waxantee dëgg. foo xëy far moo fi. léegi yow ko ci Bakary Sakho lan ngay tekki table ji ci diggante Gris Bordeaux ak Ama Balde. li may tekki table mooy Ama Balde benn na jàngi xeex. Mm-hmm. ñaar na xam lan mooy patience géew patience géew war na koo xam. bul fàtte ne Ama dafa dongali diggante contre guy gi. Mm-hmm. combat ba yag lool mu ñak mu dund ak nes mu ñak psychologiquement combat long terme doonut mbiri ama bu ñu xonté deug lool waral na bu ñëwé ci bir combat automatiquement bala nga xalaat mu yegg la ama mbeur muy def round d'observation waye bu len fàttali ne gri Bordeaux dafa bok ci ohamne yo xam round d'observation ñoru ko lu bari ndax sa bo ne beur ci kaw mu jox la ñaar yi ngay bañ ñaar yi ngay bañ fii nag ku fi wax ne xoolal Malick Niang li mu def Ama Baldé da koo muñ fii ñëppay muñ ñëppay góor lañ boo demee ba takk ngeen mu dugg ci biir bu ñu dóoree da gay da ngay muñ rek wala nga daanu ñaar yooyu nga ci boole kon nañ bàyyi di favoriser yenn yi parce que yenn favori yi day yàq mbër déjà Alaaji Bakary man nga maa bàyyi ma wax après balaa ngay wax ndax may naa la nga wax lu toll ci cinq minutes te waxuma dama lay tënkal ci kàddu rek Gris Bordeaux mën naa daan Ama Baldé lamb la loolu du dara comprendre nga ndax am na loo tax mu mën a daan Ama Baldé waaye ni nga xalaatee ni Gris Bordeaux war naa mën a daan Ama Baldé pour tax lu tax mënoo koo xalaatee ni Ama Baldé war naa mën nga koy may mi un peu de sens déglu ma wax la rek dangaa wax ma déglu bu nit ñi di wax déglu le déglu ko tamit Alaaji Bakari nag yow mii tamit dangaa neex ta a doo ma bàyyi. dama laa ñaan papa may ma rek may ma dama laa may nga wax lu ma ay doomu adama ñoo ñuy seetaan te gis nga suñu direct nii ñuy def nii léegi xam tax mu garaaw lu ci waaye di wax dafa war a am solo ndax xamul tax ëllëg wax baa taxaat déglu ma rek alaaji bakari bëgg nga répété ko nga toog nii di ko wax parce que boo waxee rek utiliser beneen terme la bàyyi nga yegg waaw léegi man léegi bàyyi ma noppi dama ma bàyyi ma baay la nga wax ba pare man ma doog a wax non dama bëgg ah. rek yi nga xam ne man moom laa utiliser nga koy. waaw léegi li nga wax laa lay wax man waxuma leen loo xamante ni waxoo ko ndax xamul tax da ngaa neex a waxtaanal ndax yow da ngay wax ci làmb waaye pas des fois da ngay wax ci làmb mel ni ku nekk Japon wala ku nekk Corée déglu ma wax la rek li tax ma naan la ay rein wala nii xale moom mooy jargandalu déglu ma rek xale moom mooy fiile. Balla Gaye la mu mënoon def ko Ousmane Diop Ama Baldé war na koo mën dama lay wax rek fàqat. xale moo koy def wóyale tël dóor tànk xale moo koy def loolu bëre la Ama Baldé yaa ngi lim ay mbër yoo xam ne nee nga gisu fi kenn ku mu fi daan jël boo tax ñuy wax lu ma rek waaw doo ma bàyyi ma ma pare après nga continuer benn cinq minutes après nga continuer dama wax ni la Alaaji Bakary kañ nga yaa kañ ñun ñun ñun dañoo ànd ak ay mbër gis nga booy bi di commentaire muy fëggale numéro deux mi may gi sànq muy bind ak ay ñoom si te ñun dañoo ànd ay mbër xam li ci mbër Ama Baldé daa mbapat sank mang ngi lay wax ni lo loo doonu mu dëgër barki mam Cheikh ibrahim Fall gis nga ndono dafa dëgër Ama Balde man du sama mbeur giri Bordeaux man na dan Ama Balde ba tok ci digg bopam ndax xamal tax ku beurek ëmma sen beurek ku ne man nga dan ku ne te giri li nek ci mom dafa graw xam nañ ko bu baax waye na la len nak giri ben tankam da koy Ama Balde dafa mën sëkk dëgg mo wax la rek dama lay wax lu ndaw dañ lay wax lamb lo xamanteni après bu la nexé bu lamb ja duñu xama làmb bu la neexee ku ci nekk nga xool ka nga xamante ni moom nga xalaat ni moo mooy sa favori nga def ko mais yow dama yow fan nga dëkk yow xanaa Alaaji Bakari xanaa da ngaa far ni ngay waxee ni Alaaji Bakari logique c'est que li ngeen wax ni non non dama lay déglu ba ci say biir kat ndax gis nga suñu gis nga gis nga gis nga live bi nii live fadam bii nii ah live fadam bii nii dama lay expliquer rek live fadam bii boo bëggee dégg-dégg àdduna bii ñu toll partout dans le monde ñëpp a koy bàyyi xel te yow nit ñi dañ lay bàyyi xel parce que des fois da ngay waxtaan waxtaan yoo xamante ni dañuy génn loo sax suñu cell suñu d'origine ba nu doon déglu ma rek déglu ma déglu ma après rek papa nga foofu lamb du tàggat non yow mii nag yow mii nag yow mii fa nga teg lamb foofu la lamb àggul ñun dañoo xam lamb dañoo bëre ànd ak ay bër takk ngeen mu bët Ama Baldé bu mënta daan Gris Bordeaux ngay xalaat ni Ama Baldé ala Ama Baldé bëreeg fëgg la fëgg mën a bëri ba bëgg a dee Ama Baldé bëreeg ci nu mu sax Papa Sow Papa Sow mën a bëri ba bëgg a dee a ma rek xoolal rek waaw dégg may déglu Ama Baldé kan moo ko fi daan neex daf neex bu koy daan ñun ñoo ko yóbbu. pour nga am man ñoom ñaar ñëpp laa taxawee nag damaa taxawee ci ñoom ñaar ñëpp ma bala moo foog ni man damaa faral ama déglu ma làmb laa koy wax làmb laa koy wax déglu ma dama koy làmb laa koy wax déglu ma rek ma may ko deux minutes man làmb laa koy wax ndax bu fekkee làmb laa koy wax damaa xam ne ëllëg damaa xam ne ëllëg làmb ja day jeex laay fi di dawaat déglu ma rek damaa xam ne ah, ëllëg làmb ja day jeex laay fi di dawaat ah waaw. Bakary Thiam damay damay dugal question yi. ndax yaakaar naa ne yaakaar naa ne live bi damay doog a tàmbali rek nag mais bëgg naa mu gën a tàng nii ndax ku si jaboom xol na léegi li am solo ba solo mooy Bakary Sakho Ama Balde li nga wax ci moom digg nañ ko. Hmm. defal attention. ma ñëw rek fan. li nga li nga wax ci Ama Baldé dégg nañ ko. mais yow Bakary Sakho tey jii buñ tegoon buñ tegoon ci làmb fukki cinq mbër Sénégal bu di ñu toll. Hmm. ñu ne ci cinq mbër yi kenn. Hmm. pour nga di ko préparer ci ay combat am yan cinq mbër ngay tànn pour ànd ak ñoom pour compétition yi nga nga di leen yóbbu. Euh, ci mbër mu ñeme. Serigne Ndiaye. waaw. Zarko. waaw. doo lim rëg waaw. ak Siteu ak rëg rëg. waaw ak Siteu. non ak Franc. bu la neexee Franc waaye ñoo ñëpp nag dama lay wax ni la. ñi nga lim ñooñu ñëpp nga xam ni yow dese ngaa xam làmb yow xaw ma foo ne. bu dee da ngaa yàgg ci réew mi bitim réew. wala foo mënti waa déglu ma lu ma wax la waa déglu ma wax la rek man waxuma ci farde waa déglu ma waxuma la ci farde alaaji Bakari nag alaaji Bakari nag maa ngi doog gëm na ngaa yàgg ci réew mi yow gën nga Sénégal alaaji Bakari question bi lan la mën nga ma dani la dani la dani la waaw boo doon tànn juróomi Sénégal waaw waaw nee na ñan ngay tànn mooy ñi may entraîné man la wax de man man ah yow ñi ngay entraîné la la wax waaw ah yow daan ñoo ciy entraîné ci ñooñu moo tax ma ne la déglu. ah ah si si si si. bu dee ni wax nga dëgg bu dee côté boobu wax nga dëgg. ah yow yaa leen di ànd ak man maa tànn néewul yow yaay tànn de man maay tànn ah. bu nga xam ne man leer na ma ñoom. Ah. mais yow yaa leen wala yow yaay tànn laa lay laaj. léegi laajal Fadam moom moo posé question bi. Fadam léegi léegi Baye Fall waxtaan du foofu man maa ngi jooy sax billahi moom laa ko répondre. léegi non man wax naa la ko de. billahi daf maa dama ko bëgg. waaw non xam naa la koy expliquer c'est question bi Fadam posé yow dégluwoo question bi yow da yow rek maa ko répondre. léegi léegi maa ngi jooy sax billahi maa ngi jooy wuy ma li ma leen di laaj Bakary Sakho. Hmm. fii Ama Baldé toll ci làmb fi fi Ama Baldé ci làmb mm-hmm. nekk naa naan mm-hmm. nekk xam ne làmb yëpp bàyyi xel mu war a daje Gris Bordeaux Ama Baldé am na lu war a moytu ci Gris Bordeaux wala am am na loo xam ne war koo moytu ci Gris dafa am lu mu war a moytu ci carrière foofu laay waxee xam nga damay bëgg su may wax des fois nit ñi comprendre. ba non comprendre non comprendre na lii moom débattre la rek pour nga wax. comprendre ah, la Baye Fall Baye mu ñëw nekk mu ñëw Baye Fall mu def rek. si si damay bañ a foog ne comprendre lu mu ko rek. comprendre naa comprendre nga ko ñëw mekk mu ñëw. Fadam. waaw. am na mbër yu bëri seen carrière xam nga lan moo ko yàq. Mhm. yaa fi mën yàpp doole. dëgg la. lamb ben takusan la. waaj boobu mën naa rëy torop mën naa doon six mois dix mois boo ñëwee benn quatre appuis ñàkk nga combat ci lan yàqu lu bëri ci sa carrière Ama Baldé don jeune am fugu am doole am sañ-sañ. Mm-hmm. ñepp nako ya yaa giri man len ci fo mënul giri. du yor. ah moo tax mu mu dara dama ko wax dara. dama ko wax dara. dama ko wax dara may ngi baax. demal. mënul giri. giri ñu Ama bo beugé dégg dëgg bëri naa ñu dakk bëre Ama Baldé xëy na nag Sénégal tour moy dem tour tour dafa am doolé souvent gaay souvent dañuy xol mbeur mi ci tour mi ci ci gox ba muy juggé mais buñu dématé jëlat temps ci carrière mbeur mi xol façon de combat yi xétu daan yi muy daan ba paré ñu jëlul ko adversaire bu melni gri nga xol offensif gri nim offensifé façon bi gri di bëree est-ce que day concordé wu ak Ama ni muy bëree dédé concorde wut ak Ama nu muy bëri Ama Baldé bu ñëwee contre Gris xeetu bëre bi mu bëgg a indi du benn du bokk benn ci combat am yëpp yëpp ay wute lépp cent pour cent loolu kenn mënu ko dindi vaar nag wax fii moo tax ma ne <coughs> na def attention lan moo tax ah, moo tax nga Ama Baldé na def attention ci Gris Bordeaux te bi Ama Baldé di bëri Modou Lo waxoo Ama Baldé mu def attention waaw parce que gis nga Gris du mbër muy sëg du mbër muy mbunaatu gis nga fii nañu waxante dëgg rek giri doonu mbër boo xam ne ni complexe la complexe wut giri du bëree ba xalaat li ci ginnaaw lim lim indi lay indi lim moom lay indi tey ñi ngi yëpp xale Ama Baldé ñu ngi koy yëpp loo xam ne nii tey day diis ci moom nit kese la jeune la toog na quatre ans xaw ma bëriwul repéro lamb bi anam mooy première erreur bi deuxième erreur bi moom mooy doon lan giri ngay bëree troisième erreur bi yéen ñaar yéen a nuróole fi ngeen tegee seen tànk quatrième erreur bi ku xam Ama Baldé xam ne amul garde xeexam jaarul yoon ñëpp ko xam. Ah? a wax ndax maanaam Ama Baldé xeexam jaarul yoon munul xeex amul garde. a la El Hadj ma ñamal la foofu lu ndaw la ma ñamal la foofu lu ndaw. lu ndaw loolu rek. lu ndaw loolu El Hadj Bakary Alat Bakari. ya may deg xarit. Amal dégg Ama Baldé ban ban mbër ban mbër ban mbër nga musa deg ni ki dor kat la ñu ne ko daan ko. ci ñaan mu jotta beurel ñepp fofu la la bëgg yamale muy contre num tuddu malik nya ak tafatin ku juk di humilier mu toroxal la lool la am luma la ci wax waxal leneen continuer bu la Alaaji Bakary yow la ñuy déglu wala xarit bi foofu da nga def mu ngi ñëw mu ngi ñëw euh, réseau bi mooy tourné. xarit. waaw Baye Fall. bàyyi ma nekk ci ba mu fekk ma ci kon. waaw ci bisimilah. dama ni waaw Alaaji Bakary li muy wax ci Gris Bordeaux loolu mi ngi ci Gris Bordeaux Gris kenn du ni champion du du du du champion champion bu mag a mag a mag a mag la mais doomu Fallaye ji doomu Fallaye ji li ñuy soxla ci mbër daa nekk ci moom. Hmm? li ñuy soxla ci mbër daa nekk ci moom. mbër benn da ngay am sañ-sañ ba pare doon jàmbaaru jo doon jàmbaaru géew. Hmm. loolu moo ëpp solo ci nga dàq bëre. Oh. xanaa xamante benn wax boo xamante ni dëgg la bien vrai que Gris champion la du turkindaa waaye Ama Baldé booy wër tarkindaa tarki tarki tarki la ndax xamul tax li nga soxla dala koy jox. Hmm? barki maam Seera li nga soxla dala koy jox Gris Bordeaux loo ko natt ci loo ko natt ci jàmbaaram ci bi muy doon gone rek xol ko ci Ama Baldé. te Ama Balde mbër mu jug pour bëgg koo toroxal pour humilier ko pour bëgg ko dóor duma rek dóor ko pour duma ko rek non loolu doo ko fa fekk leneen ngay gis wala leneen ngay tal làmb dafa am na mu demee Alaaji Bakari waaw Alaaji Bakari tamit li mu wax ci côté scientifique euh, ci wàllu calcul ndax Ama Balde warta bàyyi xel ci loolu non xam nga dama koy bàyyi xel Alaaji Fadam tey ni Ama balé man yo xam nga ni man damay wax ci lamb ni ci entre Gris ak Ama yeb dama ci wax li nga xamanteni mom la ma sama lamb jox dal li sama bokku jox ndax ñun ñi ay doomi jar lañ xam nañ làmb bu baax xam nañ li nga xamanteni mom mo am. bakari Sakho limi wax mu ngi ñëwaat na mais en général automatiquement fi bakari Sakho di wax moy hmm lamb hmm ay tool boo xam ni hmm li Bakary Sakho di waxee mooy mbër mi am na lu mu mhm. mëne mën na ko ba pare dëgg la waaye li mbër mi mënut ndax mbër mi di ko dem gëstu ji dem jàngi ji ko ah si bàyyi ko mu dugg ma mën a wax li mu xamante ni moom foofu la tolloon waaw ñu bàyyi ko mu continuer fi mu nekk nag région bi mooy daw moo tax des fois day dagg te dañuy bëgg moom soxna waxtaan waxtaanam continuer ndax li wax dafa am solo. waaw ci bisimilah alaaji Bakary en tout cas daal xam naa ne baaxoo nañ ne làmb moom boo taggut ne diw doomi diw def nga lii mbër mi def na lii tuus nañ def li def lii gis nga loolu du làmb loolu avant làmb la loolu la ñuy wax préliminaire mais du génn technique ak tactique maanaam li ñuy wax mindset game plan plan de match du ko génn looloy làmb looloy bëri looloo tax mbëri dem ay coach looloo tax mbër mi avant muy dugg ci biir géew bi coach am ñëw wax ko ku ciy bàyyi xel fàttalikul Yékini Bombardier ma ñuy werante ci biir coach mooy mujjee ñëw taxale leen bëre bu ñaangee ba ñàng coach mooy ñëw na la eh bëreel lii defal lii barki démb si ta coach bi day ñëw ne ko ah xalaat naa de yoon la tey nga war a def lii loolu game plan la kon bàyyi leen ci xel moo tax ma leen Ama Baldé lu mu am am am doole lum doon xale xale xale lu mu mën bëre bëre bëre bëre nit nit ngay doon pression nit da koy dund tok nga 4 ans beureu c'est sûr et certain que problème mu repère lamb dang koy am même bu fekkee ne bir bir arène ba nga juddo takal la rek waye nit nit nga ben ñaari baat ñi muy beureul ñepp ñi mësa beureul ci carrière ñepp ñëpp yoruñu profilu Gris Bordeaux dañu waxante deug rek te yalla tax. dañ la koy nangu ñi Gris Bordeaux. xolal xolal ñi Gris Bordeaux beureul yépp ñëpp am misère ñëpp am amul kenn ku ci ñëw le ko mépp bu yomb def li muy def amul Gris Bordeaux mën nañ ko waxal lu ne mais pour nga daan ko maam dañ ko dun par la force te gis nañ Ama Baldé fi muy échecé ci ay làmbam contre eh guy gi contre guy gi fa la e doon xale fa la gën a amee doole pourtant contre nes fa gën a doonee xale fa gën a am doole pourtant moment boobu noonu fa la Baldé mi gaay dox ana fi pourtant moo tax man la yóbbu bi ci non non sëli bi maa sëli bi rek daf leen dànk. gis nga euh, sëli sport de combat boo ci defee cinq sport de six ans amul màgg nga ak soo dee ànd ak soo dee ànd ak say morom di dem mbapat di gis li xew ci mbapat yi am cinq combat wu arène six combat wu arène fii ku fi taxaw naan màgg naa rek yaa ngi ut excuse di ko fa teg màgg naa amu ci. ndax lal sa biir écurie ay kàngam ñoo fay jóge di bëri ji nga ànd ak ñoom tous ak ñoom buñ demee ñu daan leen doona ma yow loolu mosoo cee jàngee dara dañu waxante dëgg te bi la ñuy bàyyi te ñëw appliqué mais xel dañ ko bax te ñëw appliquer Bakary saxo Bakary saxo tey jii buñ la indiloon Gris Bordeaux na ko préparé ko ci diggante ak Bordeaux am na loo koy moytuloo ci Ama bu fekkee ne damay indi gëri na ko bëreel maag Ama Balde xam Ama Balde xeexam jaarul yoon. ci njaayam doole lay lay lay utiliser. dinaa la pamti pamtee les cinq premières minutes ba nga ba ngay gis ay vidéo waaw mooy ci wàllu. mais dama non xaaral danaa wax gëri mu pamti pamtee ko les premières cinq minutes. mais gëri problème moom mooy jàpp mbër daan. le problème de gëri jàpp mbët mbër mi nii def technique daan foofu la Gris foofu foofay problème mu Gris benn la amoon mooy rañaanam boobu mu lay def dem gars yi préparé nañ ko ci xam nañ ko ci moom dañ koy fat saa ne mais lu tax Gris mënul génne lu bees def leneen lu bees loo xam ne nii tey mbër war na cee mën a am laam-laamee moo tax ma ne la boo xoolee tey ama bu fekkee ne li muy daw ci giri nee naa la bu fattee xeexu Gris jël temps round d'observation mën na daan Gris mais moo xaal leen ci biir combat bi amaa bu ci ñëwee ak doole ak fugg comme d'habitude ni mu koy indee ak sañ-sañ dana am lu ko bett ci combat bi parce que nag. mais tey jii bu fekkoon ne yaay préparé Ama Baldé booy préparé Ama Baldé nga ne ko kaay dajee Gris Bordeaux ci yenn circonstance ngay préparé Ama Baldé pour mu dajee Gris Bordeaux. nga ne bu fekkee ni. bu fekkoon ne tey jii comme ni ma la laajee ci Gris Bordeaux noonu laa lay laajee ci mm-hmm. Ama Baldé. pour mu daje Gris Bordeaux. yan circonstance nga koy préparé pour mu mën a daan Gris Bordeaux. Ama Baldé manqué lu bari wax naa la liñ soxla ci làmb la Ama yor. Mm. Ama c'est un finisseur. Ama am na mm. sañ-sañ. amaa na defaraat xeexam rek jël te commencé nag tey defaraat xeexam rek jël temps am na doole am na kattan loolu ñëpp xam nañ hmm. hmm. am na sañ-sañu làmb maanaam li gën a jafe ci mbër la yor mais gis nga loolu noonu la giri yor tamit am na sañ-sañ néewul kàttan giri néewul kàttan faw gaay bàyyi ci xel amul mag na amul ay mag laa de mag mag la mag bu am doole mag bu newul kàttan la néewul kàttan laaj fa dem laaj ma man laaj ma man ma ma bàyyi la ak saa waay après damaa bëgg a dallu ndax dama dugg rek pour siyaar sa way ndax live bi dafa am solo te comme guddi yuñ tollu sa life bii ni adna ñepp koy bayyi xel te bakkar yi nit ñi tamit dañ koy bayyi xel comprendre dafa wax ay wax yu am solo yu daje ci ñoo ñaari mbeur yépp mais lima gis ci man ci man sama gis-gis mom dafa jël favor bép jox giri may ama mino manam may ko lu tuti te aussi man tamit damay wax li nga xamante ni man loolu laa gis ci diggante ñoom ñaar ñëpp dama bëgg li nga laaj moom mii li nga ko laaj nga laaj ma ko man ma wax li nga xamante ni moom laa gis bu ko defee ma dem tëddi. waa léegi tey jii euh, bala maa ñëw yow ci Ama Baldé dama lay ñëw yow ci Gris Bordeaux. ok loo may laaj ci Gris Bordeaux. li may laaj ci Gris Bordeaux. Gris Bordeaux la am ci Ama Baldé. am na sens yëpp. yu demee nan. benn su ma indi woon Gris Bordeaux xam nga lu ma koy wax. Gris Ama Baldé dóoral ma ko ba mu wàcc. Hmm? waaw bu ñu jàppanteeg moom nees bi ñu ñëwee ñu indi nees ñun. stade bi yëpp dañoo faral Ama comme tey combat Gris Bordeaux ak Ama noonu lay demee. Hmm. Ama Baldé dina stade bi yëpp fees. nees ba muy ñëw xam nga lan lañ di ay guitar ay ñoom fëgala numéro 2 yi nga gis ñooy commentaire ak ñoom site ñoko indi won am nees fa la fa ci kër ga la màggee guitare la indi ay guitare xoolal ay guitar ak set nan da koy tojal nit ñi sofantal nees booba nees mi xalaat lim ko wara def fournir ko ba mu jeex tak do ko daan mais man suma indi won giri bo do xam lan la koy wax giri ñepp xam nañ da nga mëna xex sa loxo yi ni dama bëgg bu la ci Ama de laal fenn fu la Ama Baldé de def taj taj taj di déplacer wu comme ni ngay xeexee taj taj taj taj taj dóor ko bàyyi kanam moom suulu taj taj taj taj dóor ko ba mu décourager loolu laa koy digal bu sonnee nga dóor ko am na nu muy demee mën naa sonni mën naa jébbalu te bu jébbaloo mën naa def kat appui ki sa may dégg ngir yaay mag loolu laay digal ngir Bordeaux mais amul lenn lu ma koy digal ci diggante moog Ama Balde ni ko roofal ak Ama Balde Ama Balde man su ma ko indi woon ci diggante moog Gris Bordeaux foofu noonu ci man maay tëb dem ci Ama Balde directement damay tëb dem ci Ama Balde ndax laajo ma ko waaye dama fay dama leen a bëgg a bàyyi ak Bakary ndax Bakary dafa jël ñaari dafa jël sens yëpp jox ko Ama xam nga maa ngi koy wax sànq ni ko donnu dafa garaaw ndono. Mm-hmm. xam nga bu fekkoon ay Europe nii ay MMA mën naa bañ a garaaw waaye làmb dafa am traditionnel. culture traditionnel yu ci nekk bu fekkee après loolu da koy fàtte rek mën na laa juumloo mbër dàq nañ ko xeex dàq ko bëre mu ñëw ba ca digg géew ba mel ni du moom am na wala amul. alaaji Fadam. xam nga ñun xam nga wax xoolal Fadam. ma continuer nag bàyyi ma ma continuer dama bàyyi ma continuer. déedéet lu mu am réalité réalité ñaari mbër yëpp lañ fay ñu wuti ay sëriñ ginnaaw lu man waxuma waxi ginnaaw de waxi combat laay wax. nañ constaté Bakary Bakary Bakary Bakary Bakary Bakary Bakary Bakary bëgg bëgg nga suñu waxtaan bi neex waxi aspect muy non déglu ma rek da nga xam nga Bakary Bakary dama lay may ci ngay waxtaan xamal tax par des fois waa dégg xamal tax may bàyyi par des fois ngay waxtaan man waaw dugg ma de xamal tax dox xamal tax ma lay par débat nga ci waxtaan waaw xamal tax ma lay par débat nga ci waxtaan wax débat débat rek mën naa gën bàyyi nga wax débat débat ba pare wax ginnaaw mën naa leen bàyyi ngeen wax non même boo ma bàyyi ñu wax dinaa leen bàyyi ngeen wax ay gis nga live bi guddi ñu toll guddi ñu toll live fadam ah? xel ñu waxtaan dañuy continuer ci lamb ji nga hmm. xamanteni suñu jàpp maam la woon ñun ñoo ko doon boo ñu ko bàyyi ak ñun dañ ciy kontaan mais dama bëgg ñu waxtaan ci tempo waxtaan ci dal boo ñu ko bàyyi la dañ ciy fierté ñun lamb la ndam di mooy suñu cosaanu maam yow la daal dama laa may trois minutes waxuma bëgguma nga rabi yaa te bëgguma nga mer ndax dama laa dama lay déglu man dama lay déglu saa ne te damay nax ci bu say kaddu ndax da ngaa wax ñu may la ndax da nga ne giri Bordeaux ci yow li nga jox ci conscience ci Gris Bordeaux moo ëppale lépp ama mani la bul def noonu ndax li tax mooy fa laayee sa baay rek loolu leneen la nga jël loolu te ko nële ma rek loolu boo ko bëggee tegee nële waaw ma rek boo ko bëggee tegee nële yow xamoo tax xam nga lan laay wax li nga ëppale ama waxuma ko de waxal li may wax moom laa lay expliquer c'est da ngeen jël wax waxee ko seen façon man li ma wax dafa lay man faraluma ama de yow ama faral ama ma da ngaa foog ni boo fekkee da ngaa yaakaar ne bu yaa ngi réer nag xam nga nag bu la jaaxal nag kon non déglu ma Bakary dañ lay déglu ngay wax ci làmb lu am solo kon boo jàppee sa bopp doo Sénégalais ba ci yàgg nga naan mën naa leen bàyyi ngeen waxtaan xarit dañuy waxtaan si làmb képp fii boo nu bàyyeeg làmb dañuy continuer si suñu làmb fii gis nga liwu fadam bii nii àdduna ñëpp koy bàyyi xel te nit ñi dañ lay déglu par des fois da ngay wax wax yoo xamante ni duma ma la ko nëbbali dama naan mais sama xarit bi moom fan la ne fan la ne ndax tey jii xamul ta yow buñ nee yow tey jii buñ nee ndono dafa foor ci làmb ndax tey jii nii Falaye Balde kan moo ko mën a fàtte ci làmb ab caatam nga xam ne daa amoon ci moom yaakaar bu jógee mën naa leen caat bu màggee caat bu màggee ba caat màgg dese làmb. ah dese làmb. waaw lan ngay tàggoo ci Ama Balde. lam li may tàggoo ci Ama Baldé bala maa tàggoo nag Bakary bu fekkee dafa mer. nee ko non dama expliqué rek ay wax ndax xamal tax sa live bii nii dafa rëy sa live bii nii nit ñi dañ koo fonk sa live bii nii ku dem bay koog ñun sa bi bii nii forever kon nag yow boo waxee li nga xamante ni moom nga sentir ci mbër mële nit wax leneen leneen la mu sentir nga gis ni yow la nga wax rek moo existé yaa ngi juum ñun dañuy mbot dañuy tek dañuy caxabal fi lañ ko fi fekk ama ba de fàllaay fàllaay ba le moy bayam domi mbeur la te domi mbeur lan lan wax na jangi beure yag yag def nako ñam ah ba pere yow nga daani lolou dëgërul ba pere nga ni yow lolou non buñ ko indi ci lamb indi wuñ ko ci lamb mais ama balde dafa am ci giri bo giri dafa am ci bay fall fumay ñew dama top benn mbeur bu ñaan Ama Balde seetaan naa Gris Bordeaux. waaw. waaye waaye Gris Bordeaux nekk na ndaanaan boo xam ne nii bés ko dépassé. déedéet déedéet déedéet loolu mënul nekk sax. Giri Bordeaux nekk na ndaanaan boo xam ne nii fu làmb mënti toll. Gris Bordeaux moom ci bay waaram def na li mu war a def ci lamb lépp. du mbeur mu waaye waaye dama gis benn xale boo xam ne nii lay yeewoo. <coughs> Ama Balde tour bi mu am ci lamb Ama Balde tour bi mu am ci lamb ak ni mu mel ci lamb Ama Baldé kër bi mu ñëwee signature dama koo xool ba ci yàgg moo xam ne kii mbër kaamil la laaj ma lu tax. yaa ko yaa introsé ñoom man gis naa la seetaan naa la. Ama Baldé ca xajam nga man dama bëgg daal man daal man daal dama ciy bëgg xajam. xam nga kii kañ kañ kañ man dama ni Gris Bordeaux day daan Ama Baldé du ma ni Ama day daan Gris Bordeaux ne xam nga kañ lay am lu ko bett moom mi Bakary Sakho. Mhm. xam nga kañ lay am lu ko metti mhm. ba làmb ji jàllee Ama Baldé xaw xew ëllëg. xawma luy xew suba waaye de Pikine fonk noonu ko. Baye Fall looy Baye Fall ñu dugal yeneen amateurs yi. ñu yaatal laaj li may tàggatoo mooy. waaw bàyyi ma tàggatoo bàyyi la Alaaji damay dem. wala Bakary Bakary daa am la bëgg wax dem. Bakary. Bakary ah. loo bëgg wax Baye non bokkuñu fi ñuy waxee sax. a kon waaw ah, bokkuñu fi ñuy waxee waa léegi man moom xam naa ne peut-être mën nañoo bokk ñun ñaar fi ñuy waxee fi ñuy waxee te mën koo bokk mooy ñun ñaar ñëpp ay sénégalais la ñun ay sénégalais no non comprendre waxuma pour pour xalab la no non waxuma loolu de c'est que c'est juste. non non xam nga non loolu xalab du am xam nga xalab du am alaaji Bakary xam nga tax a jàpp xalab la lii nii. tànn pour forêt oui non comprendre loo fi may waxee en fait yow waxuma comme pour pour comme xalab la wala nangam non dama ne la bokkuñu. non non non non non non non tout à fait ça côté bi. xam nga li ma bëgg a wax. Mm-hmm. léegi wax wax ma li ma bëgg a wax maa lay dégg. wax non non xaw ma li nga xaw ma li nga xaw ma lu nekk sa xel bu ma ko defee day day yéeme. xaw ma xam la muy. kon déglul bu baax fi may wax dama ne. Ah. lamb dafa yaatu tellement ba nit ku nekk ak perception mm-hmm. bi mu koy jëlee. na aspect bu ndaw bu ma intéressé ci biir làmb du takk mhm. téere du ngemb du dëkk dëkk kër mbër wala doon doomi mbër loolu loolu loolu indiwuma ci làmb waaw kay loolu taxul may wax ci làmb man man man Bakary Sakho Bakary Sakho dama bëgg ñu comprendre non dama bëgg nag tey sénégalais yëpp comprendre léegi Baye Fall Baye Fall bëgg Baye Fall dama bëgg nga déglu Bakary Sakho waaw balaa ngaa génn live bi war nga mhm. comprendre Bakary Sakho ci ban anam lay waxee ci làmb Baye Bakary Sakho dafa gëm ne ne làmb mbeur day ñaanlu gëm na ne mbeur bayam mën na nek mbeur domi mbeur amna mais dafa am ben accès bi bakari saxo di waxe te bëgg na bala nga gën live bi yeen ñaar ngeen déggo ma doog a live ndax dama koy wax bala mo sori bamuy wax lan la la wax dama ko bëgg man du ma du ay góor dama wax wax ci dara gëm dama dem sportif da ngay wax ak wa leg bay fal legi nako may nga am lo tax da ngeen di reer xam nga ngeen di hmm dañoo tàmm saa bu ñaari nit duggee ñett nit dugg bu ñu ñu ne ah mayu ko dara kii nangam gis nga loolu du xam-xam benn ngi noonu ñaar koy ah, ma ñëw defal waaj affaire bi wax rek bu man wax rek wax si ngeen wax mais ko mu wax Bakary Sakho bind naa ko. xam nga may dundal xam nga ah. la laa bëgg xam nga la laa bëgg nit ñi xam ko. mooy ñëwal bisimilah. dimension ñoom bi ñuy wax buñ ma ci xaar. dimension boobu ñoruma ci làmb. lan moo la ñor ci lan la ñor doomu di di doomu mbër di famille ngembo kuy baayam loolu ñoruma ci làmb man aspect technique ak tactique ak xam profilu kenn ku ne façon bi ngay doxalee looloo ma ñor ci làmb pap am na solo lu am solo ngay wax donc nag bu nit ñi réer bu nit ñi réer buñ di xaar toujours ba combat ba jàll ñu ne eh, Bakary waxoon na ko non du foofu de gis nga nit lu mu bon bon da ngay jël sa temps nga toog nga jël sa xel mi teg ko ci table bi xool d'accord kii am na atu doomi mbër la koñ bi mu jugee bu jugee gaa yi topp ko loolu lépp dëgg la am na waaye ñaata doomu mbër wala ñaata mbër ñooy jugee ci quartier dem ci làmb toujours am ko daanu. waa léegi dama souvent bu daanu ñu ne daa juum song ba baaxut. léegi wala lii baaxut wala lii baaxut ñaata yoon. léegi mille fois. pour ñu moo tax ma ne foofu ñuy demee plus aspect technique bi man. pour Baye Fall mën laa ko pour nga ko fenk bay Fall ci li ngay wax. lu man man xam naa fi ngay waxee. ma man xam naa fi ngay waxee te nangu naa ko. ndax yow li la gën a ñor ci làmb. mooy athlète bi lan moo ko war ci carrière lan moo ko war ci entrainement am lan moo ko war ci war wàllu entraînement am léegi Bakary Sakho expliqué ñu ñu comprendre allo Bakary Sakho waaw maa lay dégg aja bismillah

ça muna naa la kaa. loolu am na loolu convaincre ku ma kenn jéem moo convaincre kenn mais li ma leer ba leer mooy chaque dimanche li may wax du dañ. chaque dimanche lu may wax du dañ. moo xam muy ci physique gu mbër xam mooy ci tactique am xam ci mode bi muy xeexee bu mu dul xeexee lu ma ci wax du dañ du ma sa dañ wallaahi wala zim na la ko wax léegi. waaw mais ma lay wax nangu na ne lamb li ngi ci wax muy ñak baña a bari bariwul. loolu mom yalla may na lako mais bakari Sakho tey jii bu fekkone ne am nga luy corriger ci Ama balde ci bon point ngay corriger. supporter la laay njëkk corriger. lamb du ya fété ndaw ya ëpp doole ya man lolu yakal na kangam ba Yakal dëgg la na mbeur lu bëri ci carrière am foog gars di ci bàyyi xel des fois dañuy supporter mais façon bi ñuy supporter. motax ñuy waxe ci mais. tey mbër mi ci boppam tey fël Ama Baldé nga laaj lu mu lay wax mbër mën a dem niveau professionnel mais ay supporters am duñ mës a dem niveau niveau professionnel duñ fa mës a xalaatee duñ fa mës a demee te toujours ils ont un mot c'est ça la différence moo tax ma ne samay live wala samay kaddu su ma koy génne la plupart buñ ne mille personnes lañ kenn moo ci nangu wala ñaar après nag dimanche ñëpp soo ko nangoondoo moom laay wax toujours du changé Fadam dama bëgg a bàyyi dugg bàyyi alaaji ba alaaji Bakari mu doxal non ndax live bi sax man mii di wax ak yow nii xam naa ne tey jii damay dama koy coupé commencé ne Adama Zarko laa koy def waaw léegi ndax tax li tax li tax mooy ala moom mii moom moom ak alaaji Bakari mhm. moom mi ngi jàpp ni xam naa dañoo réeroo si ay kàddu. déedéet déedéet waxul ak yow si si si si non ma rek ndax xam nga lu tax loolu dara moom. lii live la rek Toshi tamit moom dañuy nawloo ay kàddoom ndax nit xalaatam la nit xalaatam la am nit gis-gisam la am. Mhm. mais dama ko bëgg a xamal leen lu ndaw te bëriwul lay muy sa live bii nii Sénégal yëpp dañ koy bàyyi xel. Mhm. ndax da nga ciy wax làmb lu am solo yow te heure boo joxañee làmb nit ñi wax ni la wax nga làmb. mbër boo joxoon ni lii la lii dañ koy nangu ni lii lii la alaaji Bakari ku am xam-xam la ci làmb kuy génne fourniru làmb la mais dafa am loo xam ni bii nii dafa bokk ci làmb muy cosaan boo demoon ca Bécaye Mbaye dégg ko ko micro moom mi moom mi si si si si waaw yaaram tey jii ñun dafa am loo xam ne dépassé nañ ko sax yoo xam nga ne yow rek yaa am maaxaama bii nii yow rek yaa am maqaama bii nii barki Mamadou Moussa Fall yow lii nii sa la moo tax nga am ko muy dajale ay nit ñoo xamante ni dañoo dund làmb te doonoo xam lan moo làmb lan moo tax ñuy wax ci Ama Balde mooy xam naa ni El Hadj Bakary bu dee ikkee du ma nekku ca waaye ñu dañoo ànd ay mbër xam lu bëri ci mbër xam ki ci nekk xam ba xamante ni kii tamit bu daboo mën naa am keneen la mu amoon. El mm-hmm. Hadj Bakary bu jëlee làmb jëy yëpp jox ko Gris Bordeaux mi ngi bàyyi mi ngi juum. ñun bu ñu jëlee làmb ji yépp jox ko Ama Baldé ñu ngi juum ndax làmb <laughs> foolo agré rek waaye tey ji dafa am loo xamante ni di nit bu ci tollee ci ay guddeem di nga xam ne kii ni ci ay guddeem la toll mais dama lay tënk lu ndaw rek. dama ne Ama Baldé waaw dama hmm. Ama Baldé Gris Bordeaux la nga wax réew mi dégg nañ ko. te li ma ci wax. waaye dama muus la dama waaw lu coow li bari bari bari bari si tànga yal min bi borom Diem bi dugu la duggu kër ga tagu xam nga démb yo tamit li bal Balla gay ma dal li daal Balla gay ma dal de man biñ ne cité day fay bëre dama am dom ju jigéen. ah. sha allah. démb la cité dem kër ga te tudd doga dem Amérique. di ñaan yalla nak yalla dundu ba am nday ak bay sama mag ji ma bokkoon nday ak bay koko indi sama ndam ni Balla gay am lool la ma suñu borom jox kon moo tax ba lay wax na la nopi nopi wa leg lo lo bëgg a wax foofu ci de de de de de waxuma ca dara daal laa fa fadam bul ma duggal waxuma la dara de dama ni la dama ni la. ah de di dem ci xare. am lu jigen jigen jigen Jigen dara la. jigen dara la wa rawatina na nga tuddé ko sa yey ji nga xam xamni mo nga bëgg mais ala ki lay waxal num tuddu tudd ah, num tuddu ki genn xamal ko niko waaw gis nga gis nga nit ñi dañuy kontaan dañuy bëgg ñun lii la ñuy dund Sénégal lii lañ xam sa fadam gis nga ñëpp a ngi aimé di kontaan ñii di ree ñun lii lañ xam mais bu fekkee da ngaa foog ni li ñuy wax yow da ciy gis sa bopp mi ngi ciy gis boppam non yaa ngi jum barki maam Cheikh Ibrahima ñu jot bi yow da am cër ci làmb moo tax ñuy dugg ci sa live ndax damay xool ci sa live di gis ay nit ñoo xamante ni ba mu leen gisee gis xaw ma kañ la kon te ji ñun doom nañ cee wax loo xamante ni bii nii sax ëllëg lu ñuy romb nit di ñu xoolee la té nañ ci bayyi xel dama bëgg képp kuy dugg ci sa life bi nay bayyi xel ci limi wax giri Gris de mbeur la Ama Balde mbeur la waaye doomi mbeur la ki la bëggon fekk fi ma doga dem <laughs> waaw ndax ben yoon la ko seetaan dama ko naw ndax xamul ndax nit bu fekkee da nga teey nit ñi di la déglu ngay wax ba paré nit wax nga déglu ay amna solo ta amul kenn ko xamanteni warna war naa kam jëfi kenn xam-xam ci fi la ne waaye xam-xam bu fekkee jàpp nga ne yow rek yaa xam juum nga